kilifa kenn du ko yedd ci mbedd président de la république nag kilifa la ku ko soxla wala nga am loo koy wax je pense que am nga plusieurs canaux pour mën nga koo wax mais doone tey ci mbedd mi laa lay yedde je pense que ça aussi euh, du euh, c'est inacceptable d'accord euh, si pëccoxoo boobu ak xaawante euh, si Touré yi sax nemmeeku neen si kii di Cissé Lo jël ay kàddu teg ko si ndodd kii di président bu assemblée nationale mu nekk seen njiitu parti AFP di wax ne dañoo war rek càmbar du as kii dañoo war a def audi bu assemblée nationale yow si benn interview nga jël affaire boobu minimiser ko est-ce que moom mu nekk si au cœur de l'affaire bu demee ba yëkkati ay kàddu yooyu rek waruñoo jàpp ne am na euh, affaire bu ñuul bu nekk si suuf. sama appréciation nekkatuma assemblée nationale nekkoon naa fa nekk ci bureau bi doon siéger ak président Cissé Lo mm-hmm. moom mi ko wax waru ko wax fi mu ko waxee du foofu. li mu poser problème xam na ne c'est pas un problème parce que assemblée nationale son contrôle est interne assemblée dafa am structure boo xam ne moo koy càmbar moom loolu mu laaj bu toogoon bureau assemblée na parce que man nekk naa fa ak moom juróomi at musuma gis mu yëkkati kàddoom ne ah dama bëgg ñu xool budget bi dama bëgg ñu xool lii wala lii déedéet parce que foofu bu ko fa laajoon ñu tontu ko mais quand on veut faire maintenant du populisme xëy ci taxaw si mbedd mi poser problème yoo xam ne yow mi koy poser wër na la ne lii c'est des faux problèmes te wër na la wër yàlla ne assemblée amul kees bu ñuy denc xaalis ah assemblée amul amul trésor bu ñuy denc xaalis amul amul bunker amul loolu xam na ko parce que budget assemblée euh, ministère des finances ñoo ñoo ko yore c'est un budget de transfert ma li ñuy dépenser lépp c'est des salaires c'est des indemnités moom xam na ko assemblée tojul tabaxul amul investissement donc y a pas de problème bu taxawoon en pleine réunion de bureau mu ne monsieur le président dama bëgg ñu wax ci budget bi mais les gens allaient en parler et moom il sait qu'à Ah, les aspects financiers sont gérés par la, la questure est-ce que bon est-ce que kii di Cissé Lo moom yëkkatiwul rek euh, seen waay euh, ay naataangoom lu ñuy wax ci suuf est-ce que nekkul ne euh, l'AFP dafay déranger un tout petit ma nee l'AFP dafay déranger un tout petit peu parce que les militants de du du de de, de Sall ñoom dañoo jàpp ne le président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse il est temps mu quitter mu céder la place. est-ce que yéen doo leen sentir un tout petit peu benn firange bu ndaw euh, seen diggante ak ñoom xam moom moo yore quitté parce que euh, adduna bi euh, ku waxoon tey ni Ousmane Tanor du fi nekk kenn du ko gëm nekk xale taxu fee nekk nekk mag taxu fi jóge ça aussi il faut que les dans un état on a besoin de tout de la jeunesse de la fougue de la force mais aussi de l'intelligence de la de l'expérience de l'expertise kooku mag ko yore ki nga xam ne moo ko dénk assemblée nationale le président de la république xam na li tax mu dénk ko ko te moom mi fa nekk aussi xam na tamit fan lay lu mu war a doxal ci réew mi te mi ngi koy doxal su ngeen seetloo juróom-ñaari at a ngi nii déggu leen fi benn crispation benn problème entre l'exécutif et le législatif parce que ñaar ñi ko seex ku ci nekk xam nga li nga xam ne loolu nga war a def président euh, Macky Sall mi nga xam ne mu dénk assemblée nationale président Moustapha Niasse am na lu muy xaar ci moom. est-ce que mi ngi koy def est que defu ko foofu laa doon xaar nit ñi wax ma mais euh, il est grand temps tu sais la jalousie l'envie loolu moom ci àdduna la nekk yow mii am na sax xëy na koo dëggal koo xam ne euh, sa létt yi nga létt da koy déranger voilà. waaw compagnonnage euh, Moustapha Niass ak euh, kii di Macky Sall mu jur tamit euh, ay tolof tolof yu bëri au sein de votre parti. mu ñu gis ay départ yu ay ay départ yu am solo yoo xam ne mun nañu wax ne fragiliser na sax euh, AFP yéen est-ce que yéen doo leen toog avec euh, le recul ngeen am un peu de regret parce que mun naa jàpp sax ne euh, déjà AFP muy mu ngi commencer di subir les conséquence parce que douzième législature législature bi yow bokkoon nga si mais treizième bi gis nañ ne yow bokkoo peut-être à quota yu du mayoon AFP ak yooyu noonu loolu moo tax euh, nga cédé un peu euh, la chaise euh, si si si si si ñeneen loolu est-ce que nekkul benn conséquence néfaste si seen compagnonnage ak kii di président Macky Sall. alors qu'est-ce que AFP en gagne en fin de compte. on ne regrette rien. d'avoir été au président et d'être toujours aux côtés du président. Macky Sall est-ce que du ñàkk ambition tamit. monsieur le ministre non c'est un choix. en tant que jeune man je peux comprendre Moustapha Niass dem na ba mun nañu wax ne âge retraite il n'a plus rien à prouver mais yow en tant que jeune wala seen yeneen naataango nga xam ne dañoo toll ci fleur de l'âge politique war a soxla dara parce que Moustapha Niass a clairement dit en deux mille vingt-quatre sax lui il soutient euh, le président Macky kon yéen AFP moom est-ce que l'AFP de 1998 mu nekkoon benn parti boo xam ne espoir jeunesse bi yëpp adhéré est-ce que yéen doo leen toog ba ci yàgg sax ngeen am euh, benn euh, wuuseel sax par rapport à jeune jeunes yu leen yu nekk seen gannaaw yu leen topp. en fait l'espoir est toujours la xam nga. àdduna non je suis monsieur le ministre. xam nga àdduna nu muy doxee. Hmm. États-Unis ñooñu ëpp foofu. boo fa demee ñaari bloc moo fa am les républicains et les démocrates aujourd'hui dans le dialogue national la question des partis politiques est agitée tey lii gouverner Sénégal c'est pas l'APR simplement c'est le Benno Bokk Yaakaar c'est ça la force boo gisee AFP 2014 déjà mu ne woon fa ñuy jëm li dañu nañu am benn candidat c'était pour élargir la base de la majorité parce que majorité boo ko élargir euh, li naan centre de gravité bi dafay wàcc pour nga fakkastalu dafay dafay jafe au Sénégal y a presque pas d'opposition parce que ñi waroon a en tout cas indil problème. ab ah, euh, ñëw fekkee kàngam yëpp. waaw loolu laa lay expliqué si ron Macky Sall opposition ñëpp ñi nga xamante ne dañu waroon a nekk des des des opposants ñi doon opposé wu Ablaye Wade c'est des gens qui ont choisi le Sénégal choisir le Sénégal ça veut tey suñu réew dans quelques années mais Sénégal sera un pays gazier pétrolier notre responsabilité nous autres hommes politiques est que ce pays-là soit stable et que ce pays-là soit sécure et que ce pays-là soit sécurisé aussi mais loolu li koy indi mooy homme politique yi surtout nga xam ne fu tàkk ñoo ko daal mais fu dox aussi ñoo ko doxal ñu jël suñu responsabilité ne nu nu reston dans la coalition Benno Bokk mais qu'est-ce qui vous dit que le prochain candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar ne sera pas issu de l'AFP rien ne vous le dit est-ce qu'il ne sera pas issu demain du Parti socialiste rien ne vous le dit en tout cas nous sommes dans la coalition nous y restons nous avons joué notre partition li ci baax am nañ ci wàll la ca bon am nañ ci wàll. mais observateurs yi ak sénégalais yi ak euh, ñi nga xam ne ñoo sos AFP loolu euh, dafa nekk loo xam ne lu kéemaane si ñoom un parti bu mel ni AFP fas yéene langaamu rek. no mais du langaamu. langaamu la non non non xam nga la non non non non non c'est pas. ça c'est une vision ré réductrice. non parce que parti politique qu'est-ce que ça veut dire da nga créer parti que da war a jël nguur. non mais la vocation mais nga nekk au devant de la scène. mais nous sommes au devant de la non, scène non je suis désolé. mais attendez qu'est-ce que vous appelez au devant de la scène qu'est-ce vous appelez au devant de la scène. nit yi di sentir carrément seen liggéey sentir seen présence mais pas être toujours derrière. l l'APR yaa ngi nii invité ma man AFP la yaa ma invité yaa ngi may gis ci réseau sociaux yi. yaa ngi muy dégg maa ngi wax di dox di di di di di di def li nga xam ne loolu la nu ma sant sama yeneen moroom a ngi koy def te bokk ci parti bi et au devant de la scène nëpp mënul dépasser li ñuy def le président de de l'Assemblée nationale et de l'AFP nous participons à l'action du gouvernement. être au devant de la scène moo nekkoon ngeen bàyyi ku mel ni Malick gàkku wala Mata si Diallo wala keneen a keneen keneen keneen keneen ñu renforcer parti bi euh, gannaaw ba ngeen gunge kii di président Macky Sall ngeen taxawal seen bopp. dëggal dë AFP dëggal boppam ñoom ñoo xëy jàppal ne ñoom seen toogaay si AFP dafa jeex ñu dem. Ah, parce que ñooyee kat dañoo am ambition. ils sont ambitieux léegi ba ñu demee ba léegi foo leen dégg. fu ñu ah, toj ñu ngi toj de ah dama lay laaj rek. ñu ñu ngi dem élection non xam nga man lu ma mënoon comprendre nga ni génn nga ndax lii loolu nga dem ci gis ci résultat mais yow ba nga demee ba léegi déggatoo ko wala gisoo fu mu toj war nga xam ne y une erreur de casting je crois tey boo jógoon ci télé bi da ngay dem si beneen télé télé boobu ngay dem amoo fa sax émission dix minutes problème la jàpp. d' accord ñu desandi ba tey non non d' accord ma ak yow si li nga wax li nga wax mënu ma see d' accord parce que man en 98 ñun boobu ñun ay xale la woon ba ñu déggee que AFP dafa taxaw ñu c' était un ouf de soulagement dañoo jàppoon ne que carrément. que dinañ gis si sax non. ma si sax mu musuma see <laughs> bokk mu dugal. <laughs> mais bon euh, dañoo jàpp ne benn parti boo xam ne mooy loolu dina wuteeg ay yeneen parti politique euh, classique yu ñu xam mais malheureusement AFP dama lay wax nag dama lay wax dama lay wax gis nga AFP de 2000 à 2012 on a été l'un des partis les plus présents sur l'échiquier politique tu sais pourquoi parce que boobu parti opposition la ñu woon. mais AFP est-ce que nekkul ne euh, paa bi moo ko rey.